الفرع الرابع محمد غاي من جمهورية السنغال وقد حاز جائزة قدرها مئة وخمسون ألف ريال الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم كاملا معه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziare di am mbégte contentement bu baax a baax ci suñu ndaw li nga xam ne yàlla dogal na ne moo demoon ci turu jaayise bi fee ca jongante bee di am ci Saoudia yàlla dogal fanax bi mu bokkoon moo jël première macha allah mooy Mouhamed Gaye waaw Mouhamed Gaye tabaraka rahman waaw macha allah kon nag mi ngoog na ko kilifa yi yëg waxoon naa ci njëlbeen gën a ñoo ngi ñaan yàlla may ko na waaye bu amee ndam bi yëg ne kat mbiram la mu def ci ay effort ngir ñu jëli ji ko aéroport andi ko fii bu jaree ñu incha allah lu mu jaree ñu yóbbu ko ci sëñ bi nuyoo la ko yóbbu ko ba këram incha allahu taala dana ko jar ñu def ko ndax loolu kat njariñ la loo xam ne mi ngi tàmbalee juddoo ci jaayise bi boo xam ne liggéey na ko.